Fils de Balla nga bëre 4 euh, combats benn à Gambie nga bëre fii 3 combats ici à Dakar premier combat bi nga ñàkk ko par avertissement deuxième combat bi nga ñëw bëre daan ñibbi troisième combat bi nga bëre daan ñibbi mais dafa am lu ma toujours gars yi lañ ma jël gars yi lañ ma jël mais yan gars ñoo lay jël instant bi fan nga jël fu ma laa bëgg exactement ah. bu dee am nga fit rek dëggantaan fit bi ngay ñoddi bu dee mu ci yow nga jàkkaarloog nii ne xoolal gars yi jël leen avance bi kaay leen ñu bëre tuddal ma ay tur ne ma xoolal gars yi nañ jël avance bi. non man sëñ naa ah, man bokkuma si mbir yi naan ay duma si dëkk yi ma nag yow. man damay tudd nga xamante ne nii làmb def ñoo boole duñu war a beneen. voilà mooy ñan. mooy ku si mel ni kii kuy gi 95. guy gi 95. guy 95. mu ñëw ngeen bëri. waaw guy ma maa ko def wax dañu war a bëri. Ah, ok kooku lamb dàqu ko. neex na xam nga neex na. donc combat la. Brise de bu euh, bu Caaroy Géej. bu Caaroy Géej. te bii bëri woon ak Zal Bawol ak Zal Bawol. waaw a bëre. maa moom làmb daaxoo. d'accord ñu war a bëre. làmb ak kii bébé Ama bu nekk ginnaaw raay. boobu moom revanche la war a jël si. bébé bu euh, bu Pikine mbooloo. bu Pikine mbooloo ñu bëri ak Poldou daal. boobu dafa war a jël si revanche am. ok revanche maanaam ndaxte dama dama dama dem Gambie di bëreeg doomu ndeyam Abo mu jël Abo Sarr jëlee ko Sénégal yóbbu ko Gambie mu jàppale mu koy jàppale préparation. di ko contact loolu mu nekk signature ba xam ne. Mhm. mu ñuy wax lu ne wax lu ne mën a paa di ñëw ànd xam nga mooy loolu ma daan doomu ndeyam foofu noonu. Mhm. moom mu ñëw Sénégal moom Sénégal la def mu dellu Sénégal. dafa nañoo jëlal ko revanche. ah mu ñëw jël ci revanche waaw ah, waaw. parce que dafa indi mbërëm. Ah, dafa indi mbërëm nga daan ko. waaw léegi da nga bëgg moom ci wax mu ñëw nga daan ko. waaw ah, ma daan ko ma daan ko war nañ ne ko li ñu li ñu woote. waaw léegi est-ce que xam nga bébé Ama yow xam nga bébé Ama bu Pikine mbooloo. parce que Serigne Bamba bu ñëwee fi ma fi ma jaaralee doomu ndeyam Abo Sarr fu ko raw laa koy jaarale. billaay bu tegoon avance am nga jël ko waaye yow suba suba tey jii tey tey tey ngoon ngoon ngoon bu ñëwoon tey si la ñuy reer gannaaw. waaw léegi Brice Brice est-ce que xam nga ko Brice Brice ñu fi signé benn doublé bu waaye yow. fii lañ ko jox Nokia diggante moom Nokia yaa ngi fàttaliku. seetaan naa fii stade Iba Mar grand combat. maa ngi woon ci stade mu jóge fii ñu jox ko bébé bis mi gis nga nu mu demee. maa ngi woon ci stade waaw léegi nga toog fi eh, eh, di tudd ay Brice 2 nag. Brice 2 man numéro 2 xam nga ñooñu ñëpp suñu samay morom lañ. sa morom la d'accord samay naataangoo lañ parce que defuñu si lamb loo xamante ne war ñu war a ministre de main numéro 2 kan, man ak mom lamb tax mais mais mënon laaj bu yem bu yem tuuti nga bàyyi gars yu tàng man soxlawu ma lu ya, lu lu set man kamu gak gën a tàng foofu aku gak nentang. Ah, lu gën a lu gak nanti gak métti gak a lu mu nanti a diis gak gën a gën a baax d' accord jox ma beneen adversaire parce que bu ñu promoteur yi mën nañ démarcher brise mu sotti mais mën nañ ko démarcher tamit mu tamit tamit ba Thierras numéro 2. ba Thierras bi nekkoon ci bi nekkoon ci classe bi moom ak ay. bañ tukki na kooku tukki na ah, kooku mi ngi France actuellement na tukki na. Ah, kon kooku gën na lamb. non gën xoolal kay booy yi fi ne instant bi tuddagum ba ñaar du ñàkk promoteur yi démarché kenn ki am nu mu demee ñu dem seeti keneen bi da ngay tuddaat keneen ak keneen am quatre adversaires yoo xam ne gars yi dana leen leer ne fils de Balla ñii la war a bëre. Pokola bi mu dañoo bëgg journée. Pokola mel Pokola jarbaatu Ama Baldé jarbaatu Ama mu def 4 combats. waaw 3 victoire benn défaite ma def 4 combats 3 victoire benn défaite. lam waruñu boole. mu bàyyi mu tegi ko fi dem feneen. mais ba léegi combat waaw moom ba léegi combat la lay wax mais mais est-ce que gis seetal nga jënd combat bu ko def à l'arène nationale. ñoo bokk même jour la. gis nga ni mu def waay. suñu jour si ñaati maa toog nii mu toog. waaw léegi gis nga ni mu def waay. waaye yow bu ñu ku kan mu wàcc. ni mu def waay jooju noonu bu ñu nee nu ko raw laa koy def. waaw mais booy attention yow da nga bëgg lu métti de nekk félicité ay booy yoo xam ne booy yu tàng jër. non Pakola. waaw. Ah. Seexa Paxulaa li tax man ak moom sax suñu combat di nekk der bi parce dafa am booyu nekk Pikine yoo xamante ne nii dañu nekk côté bi fi may liggéeyee. côté côté Sandaga côté côté waaw côté Medina bi. ñu liggéey foofu. Mhm. xam di débat xam nga Paxulaa moo tax combat moo tax. ma gën koo bëgg. non moo tax ma gën bu taxawee day nekk combat boo xamante bi lay. non ñu ngi déggante naa ñëw jël ko naa ñëw ñu seetu waxtaan mais su ma demee naa ko ne xëy fii de bare nee na nga jël avance am. barke maam Seera Fall moo ko tere nii. d' accord booy ñu ngi nekk foofu nag booy picc nga xam nga di tax seeni rajo di waa rek mais kenn ku ne na xam li nga xam ne. non mais mais attention Pokola deux derniers combats yu mu jógee par kaw la ci jël. waaw c' est dafa bëri booy mu lonk dóor ko mu daanu. mu jógee ci bëre am lu si te dóor ko mu daanu. non est que yaa ngi signé loolu. non moom day mel ni moom moom waaw moom. deux deux derniers combats yi euh, victoire par kaw la signé. waaw gis seetaan naa ko fii benn Iba Mar bi fii waaw moom dafa kaw a waaj. dafa demee bu dafa fii moom ak kii. Ambusité da ko kaw seetaan mais door bi ñu door mu kaw. déedéet non daan nañ ko fi d'accord. daan nañ ko kii moo ko fi daan dem si àll si Gris. Gris de Gris bu Malika. waaw Gris bu Malika moo ko fi daan di sax kooku génn àdduna temps yii passé. waaw waaw déjà bu ko ñaan yàlla yàlla mu mhm. a xamal la de combat la de combat la de. Ama Baldé ay si Baldé. mais attan nga ñooñu attan nga seen seen kéem booy. attan nga kéem Paxula ak yéen. man la de man ngay waxale. attan nga riir gi booy booy attan nga riir. doomu baay bari bi ngay waxal de. lii de ak maa la xam ak si ginnaaw ñëw bari. man mi déplacé wu ñëw seeti la dama laa xam dama bëgg gars xam la moo tax ma lay wax loo nii. Serigne Bamba c'est que gars yi mën nañu ma gis nii nag mais mën Bamba xale bi daa pare la. joxaat ma beneen adversaire. ay dana kalaay la. Hydra Kara ban bu Thiès bu Thiès mais kooku fii ñu bëri xamuñu ko ñu bëri xamuñu ko mais Thiès moom toj na fa Thiès moom toj na fa mais Dakar fii nii gars yi des nañ ko xam ne adversaire yi bëri nañu fi non bëri nañu adversaire yi samay adversaire moom am bagage ci làmb bi waaw ku ñu làmb boole rek bi baax a baax a baax parce que côté bi xam nga mën nañu mooy suñu kilifa mooy suñu lépp mu ngi mu ngi dajale xale yi di waxtaan ak ñoom seexaw tam di dajale xale yi di waxtaan ak ñoom xam nga ñoom yëpp xam ak waa koñ bi waa Medina bi rue onze rue onze bi xam nga waa rue onze rue treize ku ci mel ni Assis Assis kooku nga xam te ne nii sama sama grand bi côté ñooy liggéeyoo ci tiset yi ñooy defar tiset yi mm-hmm. Assis Mbaye mm-hmm. waaw mooy nekk fii rue treize bi door ci seeti nag mhm. ak yow poti moo poti ñoo lépp nag ah, c'est bien ko waa benn gars yi foog ñu ciy ak waa Médina bi waa Rue 1 bi ñëpp xam mhm. waa waa centenaire bi mhm. waa centenaire waa garage bi fi ma sama garage fi ma nekkoon ak xam nga waa centenaire bi ñëpp booy yëpp waa Bawol fi ma dégg reefan xam nga reew woon Tuubaa bu reefan seetaan bi nag dañoo waa Kastoor xam nga. Mm-hmm. gars yi bu ma amee combat ñëpp dañuy jóg. dañ ciy jàpp yaakaar ne ah nañu yokk mobilisation bi nañu yokk mobilisation bi. mais sant ak gërëm yi moom da ngay ba ci fin bi mu may la nga sant ak gërëm quoi. mais ba tey ñoo ngi ci làmb ji. mais damay dellusiwaat tuuti ci question réponse fii si bare dama naan rek euh, yaa ngi yaa ngi Médina. maa ngi mais mais 100 pour 100 Baol bi day daw quoi benn instant man gis naa loolu. n'est-ce pas yaa ngi sans sans bi waaw léegi beneen sans question bi mooy euh, question bi ma lay laaj nag yow bokkoo ci mais ah, loolu boo ko doon seete cité dina naxaree cité maa ngi ci seen biir xam naa bu baax kanay kan ak kanay def lan mais yow laa jàkkaar loolu damay laaj samay question bawal bawal yi kan moo ci dàq bëri loolu li ñu gis ma tontu wala parce que parce que bool bool yi moom yaakaar naa ñëpp a mën a bëri. xam naa loolu. ñëpp a mën a bëri. mais kan moo ci dàq bëri. maanaam ci écrit yi nekk bawol yëpp wala ñu bëri bawol. bëri bawol bawol yëpp bëri bawol bawol yëpp. kan moo ci dàq bëri. ah man moom xam nga mooy wax wax dëgg yàlla na sa waa écrit non jox ma kenn jox ma kenn ne ma diw moo dàq bëri ci bawol bawol. waaw bawol bawol moom bu fekkee bëri du rek la ñoom jaaxu ma si moom njaaxum mel. waaw def katu njaaxum. def katu njaaxum bu mag boobu. ak a mën a bëri. Eh, ak mën a bëri. du caaxaan kooku moo tax gars yi nanguwuñu koo laal ba léegi. waaw jafe na nag pour utal ko adversaire. gars yi dañoo xam li ne si moom. Mhm. moo tax ay combat am naqaree taxawal. parce que njaaxum dafa nekk mbir moo xamante ne mën nga ko gis yàgg ko bu ngeen tëjee barrière yi a baax ak a leer ak a njaaxum la. jàpp nga ne daal moo dàq bëri ci ci bool bool waaw wan wax dëgg yàlla buy bëre moom ma toog si stade moom yàlla sama parce que dama xam li mu nekk si moom ak que maanaam bëri na suñu aigri yëpp yëpp lu ñuy ma jiit parce que damay xam li nekk si ñoom bu baax a baax a baax parce que damay xam ne ñi ay daanaanu bërekat lañ te maanaam damay xam ne ay daanaanu bërekat lañ damay xam ne ñi pour nga daan leen moom dina métti trop. day jafe waaw du ma du ma tiit benn yoon. d' accord euh, benn instant dama naan euh, euh, làmb ji yow yow bokkoo ci question bi bokkoo làmb ji kan ma fi dàq bëre. làmb ji tout tout. waaw ah. lépp. waaw. ah, ah làmb làmb ji yow non làmb ji wax dëgg yàlla bu ñuy wax dëgg nañ ci yàlla tax Balla Gaye 2 moo dàq bëri ci làmb. waaw mais maa ngi ñëw non maa ñëw instant yii maa ngi ñëw foofu noonu dèjà Balla Gaye 2 moom nangu nga bëri ci làmb. waaw ci yàlla Balla léegi yow li ma sa top 5 juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb dèjà Balla Gaye 2 moom dugal ko parce que nee bëri ci làmb léegi da ngay dugal 4 4 mbër mu ngi top 5 te juróomi mbër juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb kan ak kan ak kan Euh, Tafaati. waaw Boy Pouy. waaw Boy Pouy dafa mën a bëre. ñëwal Boy Pouy waaw mu def bëre. waaw Modou Séréer. Modou Séréer. Modou Séréer daa naa ñëwal ba tey ñëwal des benn. waaw ak suñu généra génération. làmb ji yëpp rek yaay seet rek nekk mu kan waaw jaaxum. jaaxum jaaxum daanaan. muy 5 amul morom mooy sa top 5. Balla Gaye 2. Euh, Tapha Tine Modou Sérère Boy jaaxum ñu ñoo dàq bëri bëri ci làmb parce que dañuy jàpp rek def affaire. Euh, bi nga dalee bëree ba tey ñu may wax victoire bi la gën a nekk sa carrière ban victoire mbapat ba arène. sa victoire bi la gën a nekk sa carrière. yàlla bu may waat yàlla tax na sama combat bu jëm si naaw la ma gën a neex. sa dernière victoire bi. dernier combat moo la gën a nekk say victoire. waaw parce que xam nga combat bi. combat booy jël xam nga waa ji bëri combat bëri coow trop. ñëpp ne moo la mën ñëpp ne moo la mën. xam nga ñëpp ne waa ko xam si ay luur rek combat bi yëpp si ay ñoom jaaxum booy bi bala luur ay ñoom moo séeréer yi daa ko préparé. ay ñoom moo dànkayeen ay Cheikh Mbaye a attantaan. kon daal victoire bi la gën a neex sa carrière mooy bi nga daan yoon Sina mais aussi booy jël si waat ci bi la gën a métti sa carrière bi nga dalay bëree ba tey mbapat ba arène défaite bi la gën a métti sa carrière ban défaite la. bi ma gën a métti sama carrière. Ah. sama combat ak euh, Tidiane Faye. Tidiane Faye dégg fan. Euh, mooy nekk di plateau. ok boobu combat boobu boo woon. défaite boobu moom moo gën a métti. aussi combat boobu dina gën a combat bu métti xeex xeex maanaam di gët mm-hmm. maanaam ñun ñaar ne koo ci gis mënoo xame kanama gët xam nga ma toog ñu toog noonu ma toog toute la journée te lu ma sama ne sama yaay fekk ma fa ni ma da bàyyi law waaw xam ma xam ne rek lii affaire bu góor la moom mooy loolu mm-hmm. ma gën a métti si sama defet rek sa carrière Bamba di laa ndax boo xool dama ko mën bu pare mu daan